xëy na xamoon nga ni sa carte d'identité bii nii ci jumtukaay yi ngi jëfandikoo muy lu mel ni sa appareil yi mën nañu cee jaar ba xam fi nga nekk jël si li ci jamono ji mu mën a nekk waaye jaare ko ci informatique jaare ko ci ot technologie waaye jaare ko ci lu ñu tuddee darknet wala deepnet ana wan yoon lañuy jaar yan lor Mm. mooy lor yi nga xam ni moom la jollu si làmbool machine yi site internet yi loolu lañu leen bëgg a leeral ak wan yoon la ñi nga xam ne ñooy def mbir yi muy wàllu piratage ak yi ni mel di def xeetu vidéo yi nag bokk na ci yi nu gën ñor yi nga xam ni bu nu sañoon mbooloo mi di ko gën di bàyyi xel ndax ñu bare bari ñoo ngi jaay seen ëllëg mbaa seen ëllëgu njaboot ci yu mel nii te xamuñu ci dara maanaam nekk ci lëndëm gi rek di dañ waaye nag dafa fekk ni defar vidéo dafa nekk lu jafe di laaj jamono ñu baree bari muy temps ak li ñu tudde ay cumtukaay yu performant muy ay matériel yu performant te suñu dal bii nga xam ni ci lañ leen di defale yooyu yëpp di ci sacrifié wu dañuy gis ni ñi koy topp bëriwul lool ba daanaka li ñu ciy def ci temps day mel ni du ko jar waaye nag am na ñoo xam ne ñoo ñuy motiver ba nga xam ni saa su ne duñu mën a yokkat te mooy ñi nga xam ne saa suñu defee vidéo lu mu gàtt gàtt daañu zem muy def li ñu tuddee layk muy bëgg ak ñi nga xam ni daañu koy partage lu baree bari ci mbaali jokko yi ñoo ngi leen di gis ci YouTube ak ci TikTok bi amuñu seen fay waaye itam ñi nga xam ni saa suñu defee vidéo ñu commentaire ñooñu kenn du ñoom ndax fu sunu dal bi àgg man nañu ne liggéey nañ ci lu rëy rëy ginnaaw ñi nga xam ni ñoo koy partagé ci mbaali jokko yi bu ñu duggee ci leer nag dañu lay wax yow mii nga xam ni yaa yore jumtukaay bii di jollosu muy portable waxoon nañ la daañu la waxaat ne sa jumtukaay bii nii xamal ni moomoo ko wala yow amu ci lu may matière bi nga xam ni moom nga téye waaye lay jumtukaay bi dëgg-dëgg muy maanaama man nañu ni doo ci dara su ñu la ko doon jox niral day mel ni ak kër la gu rëy loolu mu tudd internet ci biiram la li ñu tuddee réseaux sociaux nekk di ay néeg ci biir kër gi waye kër gi limi reey reey reey bari lool ay ruqat ruqat yow la nga ci am moy bo ñëwee ba ci miru kër gi benn fenêtre ang fi fenêtre bobu moy liñu ñu appareil yi saa ni bëgg nga denc dara ci kër gi mën nga jël sa loxo nga dugal sanni ci biir sa boko soxla nga génne sa bu la nexé nga jël sa kanam depp ci fenêtre bi yër waye lay xew ci biir wala la nga fay dugal lépp am na ñoo xam ne ñoo la ko gën a yow daal amoo lu may sëmbërtal ci biir walbatiku lii mooy niralum internet la nga fa dugal nag mën nañu ko def nu ne fu nekk mën nañu ko fa jaaralee. yow mi nga xam ni yaay connecté ci internet moo xam ci jollosu ñu indi ci leeral ba noppi am nga ci biir jollosu gi li ñu tuddee IP.

saa boo xamee ni tey ni connecté nga bépp site boo dugg dañuy collecté lié information yi nga xam ni moo ñeel appareil bi ci connecté adresse IP am ak jëmmi site internet bi mu dugg wala application bi nga xam ni moom la téléchargé ba ci piis bi nga xam ni kon moom nga dugal ngir di ci connecté kon fii li nga ci déggee moo di ne yow saa boo jëndee appareil rek bis ba nga ci dugalee yow su piis ci lan daal di collecté sa données yi nga xam ne moo ne sa piche daal di koy lié maanaam lënkale ko ak sa adresse IP waaye li nga xamaat foofu itam muy lu lëmuñ loo xam ne ñu bari duñu ko bàyyi xel muy piche bi ginnaaw bi nga ko jëndee lu baree bari da nga koy identifier maanaam identifier ko ci sa carte sa carte d'identité bi nga ko identifié ci biiram am na benn fiche électronique wala boog li ñu tuddee fiche biométrique muy benn fiche boo xam ni fiche dàqukaay la muy foo nekk li fekk yaa ngi sa carte d'identité mën nañoo xam ni yaa ngi fii sa fiche boobu nag wala ñu ni sa appareil boobu nga xam ni ci nga dugal sa fiche bépp appareil bu ci duggaat itam adresse IP bi day collecter données yi nga xamni nek na ci piche bi daal di koy lier ak protocole bu appareil bi manam adresse bi ci bopam ba nga xamni tay buñu jëlé sa adresse IP man nañu xam mboolem piche yi nga xamni dugg nañ ci appareil bi ak piche bu ci nek itam kañ nga ci dugg li nak amna lo ci te muy lu dangereux lo xamni motax ñu baree bari ñu leen di yóbbu ci yoon di leen téye ngir appareil bu ñu jënd moo xam ca lañuy tuddee maquette ba wala yu ni mel kon yow mi muy diglu na nga xam bis ki tey ni saa soo xamee ni jënd nga appareil ba dugal ci su piche bu fekkente ni nekkul yow yaa njëkkoon yor boobu appareil yaa ngi ci danger maanaam tey ki dem ca barab bu ñuy jaayee appareil mu jënd appareil boo xam ni du bu bees fekk ne benn samba booy jëlal na appareil bi jël benn numéro boo xam ni identifié wuñ ko daal di koy def wala mu wax ca nag sudul noonu suñu toppee trace yu jëmmi piche bi ba jot adresse IP bi ba xam ni adresse IP bii muy appareil bii moo ko doon woo ba ñu localiser ko ñu gis ni ginnaaw bi dugalaat nañ ci beneen piche ñu gis ni beneen piche bi ñu ci dugal dañu ko identifier walla ñu localiser appareil bi gis ni yow yaa ko yor yow mi ñu fekk nga yor ko yow li ñuy téye moo tax bàyyi bëggul yomb am na ci solo lool. yow mi nga xam ni yaa ngi yor appareil boo xam ni du ko jënd ci mbedd mi. na nga xam ni bis bu jot mën nañu laa téye mën nañu laa toppee délit mën nañu laa toppee sax ba crime ndax mu ngi takku rek ca ka yor portable ba ana lam ca def ndax bu fekkente ni moom piche bi mu ci def daa nekk piche bu kenn identifié wul kenn du ko mën a topp moom waaye la mu ca wax day des ndax bu ñu demee réquisition ci Sonatel dañuy gis ni ki doon wax day ci adresse IP bii la doon waxee te adresse IP bi fu nekk mën nañu ko faa fekk yow mi ci dugal nag sa fiche fekk sa fiche ñu identifier ko kon dañu naa diw mii moomoom appareil bi ak ndoonte moom daa bëggoon lu yomb dem ak ñi mem yàlla toll ci mu gis ni portable bi bu war a jar fanweeri junni la wala juróom fukki junni wala un million ñu ne ko kaay ñu jaayee la ko fukki junni mu xam ni kii ko jox ab sàcc la wala mu lin ni ko lii wurut mu bëgg lu yomb ba tax mu jënd ko loolee mu doon bañ a fay mujjee ko coûté cher mu tëdd ci fukki ati kaso mbaalu ko ëpp loo xam ni dara dara tëqewu ca laalewu ca waaye bëgg lu yomb ko dugal kon lii nañu koy moytu képp koo xam ni yaa ngi doon jënd appareil boo xam ni du bu bees na nga def attention te xam ni jamono ji jaxasoo na kon yenn saa nga gis ñu jékki-jékki rek jàpp nit te lii ko waral ñu dégluwaat mu bu baax dama ni ki nga xam ni daa dem jënd portable bu yomb wala bu cher moo xam lu mu mën a nekk waaye jënd ko mu bees ka jaay bu fekkee da ci def ak garaawal yi moom bis ba mu ca dugalee picham rek su fekkente ni moom mi dugal picham identifié nañ picham dañuy xam kan la mën a xam itam fan la nekk bu fekkee mag ak carte dañ koy mën a jëli fa mu nekk ci localisation muy dàkk waaye itam bu fekkee ne moom di ca duggal piche boo xam ni kenn identifié wu ko fa mu nekk mën nañ koo faa fekk ndax dañuy localiser appareil bi ba léegi jaaree ko ci adresse IP bi mboolem la nga xam ni ka defoon garawali ga defoon na ko ci appareil bi ba vanteer ko ko moom mooy yenu responsabilité ya bu muy tuwul waaye itam bu la nit mukk ni la abal ma sa piche wala abal ma sa piche ma essayé appareil bii bis boo ko defee yow sa piche bu mu ci duggee rek la information yi nekk ci adresse IP bi di lënkaloo ak information yi nekk ci piche bi jamono ji kula xamut su la abbee sa jollosu manam sa appareil ni la day wootee bu lu taxaw wax li muy wax yeen ñaan ñëpp ngeen di dégg bu ko jox sa jollosu ndax su ca waxee naka su dul noonu fa nga nekk man nañ laa jël si jaaree ko ci sa piche bi nga xam ne da caa nekk ndax sa carte moo ko identifié te sa carte yor biométrie maanaam piche biométrie itam sa appareil yor na piche biométrie saa su ne nañu laa jël si kon lii na ngeen ko bàyyi xel bu baax li ñu leen ci dollil mooy li ñu tudde Google yow mi nga xam ni yaay connecté ci Google maa ngi lay lay biire beneen bii nga xam ni moo gën Google fuuf muy dag-dag goow nekk boo xam ni moo ëpp sécurité dina leen indil danger yi nga xam ni moom la Google làmbool dag-dag goow nag ni ki nga ko gisee nii danuy protéger say données personnel waaye itam ñi lay jéem a di la espionné jamono ji ngay connecté yëpp daf koy protégé ba du ñu mën a am accessibilité kon application bu performant la ni ngay téléchargé Google wala ni ngay amee Google ni ki application noonu nga koy amee ni ki application di ci connecté dinañ leen indil firi fàcce yi gaaw na neex na yemb na te moo gën a maandu ndax Google projet seytaane la maanaam jaami seytaane yi dañu ko def niki projet ngir di man di collecter données yi doomu aadama yi niki ñu leen leerale lii nag ci jëmmi appareil bi dong boo leen toppee ci sunu càllale gi xalam dina leen ci indil yeneen leeral ci appel yi ngeen def muy appel téléphonique yi danger yi ci nekk waaye naka noonu application yu réseaux sociaux yi ak mboolem li soxal internet ak lu jëm ci wàllu réglage yi nga xam ni moo jëm ci jollos yi ak machine yi yow mi nga xam ni bëgg nga ubbeeku lu ñeel danger yi nga xam ni moom la lënd gi làmbool muy internet boo ñu toppee fii ci xalam TV lépp dana leer ndéem som na yàlla waaye yow mi nga xam ni yaa partage suñu woppa wi ak yow mi like amuñu sa fay jaa ngeen jëf